bismillahi rahmaani rahim noo ngi fas yéene tàmbali bàndab ñeenteel bi ci xëtub juróom benn fukk ak ñett julli gën a kuñ ca raw bu ñu sëlmalee na nga fay la la raw ca kàbbar ya te bu ñu fabul néew ba gannaaw kàbbar bu ne na nga ñaan bu ñu ko fabee nag nga toftale kàbbar ya te sëlmal bu ñu koy yanu nag bu ko ñeent mane yanu moo gën wala sax lu ko yées waaye lu ko ëpp nag taamu wuñu ko bu ko defee ña féeteeg bopp ba ñooy jiitu ña koy gunge nag ku cay dox ak tànkam jiitu néew ba ku ca war ci dara féete ci gannaaw néew ba bu ñu koy yóbbu nag jigéen ju màggat te ñaaw te xobado nga xam ne ku ko gis du ko faale sañ na caa ànd waaye na nekk ca gannaaw góor ñe te bañ a laal la koleñ waaye ku amee dara ci xoy ci xoy-xoy lu mu néew néew du ca sañ a ànd doonte mbokkam ma ko jige la sax sañees na itam toxal am néew yóbbu ko feneen fu bokkul ak fa mu faatoo ngir yilla li feeg suulu ñu ko bu ñu ko suulee nag déesitu ko sulli rawat na nag bu ñu defee ne soppiku na tax ma nag gën jaa néewam moo di loo xam ne bu nëboon itam du xeeñ ndog ment itam du ko mën a sulli waaye bu matee loolu rek nag doy na tax ma nag la ca gën a nag ci suñu réew mii nga xam ne suuf su nooy la moo di li ñuy wax saq loolu nag moo di gas lu gudde ni néew ba yaatoo lu toll ci meetar gasaat ci digg pax ma meneen pax moo xam ne ñooy tolloo ab guddaay te mu yaatoo lu toll ci ab setre nga xam ne néew ba da cay yem kat bala ñu ko caa dugal sopp nañu ko fab ca suuf su yees sa jàng faatiye benn yoon ak ina ansalnaahu juróom-ñaari yoon tefli ko ci jiital ko ca pax ma door ko caa dugal loolu ku ñu ko defal deesu ko mbugal naka noonu ku jàng ñaan ji ñetti yoon tifli ko ko ca bañu ko cay dugal moom it deesu ko mbugal mi ngi nii allahumma inni as'aluka bi jaahi nabiyika nabiyi rahmati wa turbati tayibati tahirati wa ma dammatku an laa tuhasiba haasal mayta fi qabrihi naka noonu bu ñu ko dugalee ca tax ma te suula guñu ko ku jàng fa tolloog bopp ba faatiya ak lixlaas ak falaxi ak naasi lu ci ne benn yoon yàlla dana musal néew ba ci mbugalum bàmmeel ak xatam te dana tàbbal ca bàmmeel ba junniy leer te moom mi ko def dees na ko bindal tuyaabay junniy nit ñu dee ci jihaad te dees na ko tabaxal dëkk bu rëy ca àjjana ja gën a kawe te dees na ko bindal tuyaabay jaamu yàlla ak juróom benn fukki at naka noonu ku bind bismillahi rahmaani rahim ñaari yoon ca biir bàmmeel ba te safaane ko door ko caa dugal moom it deesu ko mbugal naka noonu ku bind ca làkk ba xéete féete xibla ca biir bàmmeel ba tur wii kon borom bàmmeel ba dana taxe mi ngi nii faatimatu bintu asad naka noonu ku bind ca kaw bàmmeel ba tur wii moom it deesu ko mbugal mi ngi nii ibrahim ibnu adham naka noonu ku bind bismillahi rahmaani rahimi juróom-ñaar fukki yoon def ko ca biir càngaay la mo càngaay la moom it deesu ko mbugal naka noonu ku bind lii def ko ca biir càngaay la moom it deesu ko mbugal mi ngi nii laa ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamuutu bi yadihi alxayru wa huwa ala kulli shay'in qadirun la ilaha illa allah wala hawla wala quwwata illa billahi alhaliyil hasimi naka noonu bayit yii ku ko booleekum néew moom it deesu ko mbugal mi ngi nii yaa qaahiram bil manaaya kulla qahaari binuuri wajhika ahtiqnii min annaari ilayka aslamanii man kaana yahadunii min ahli wuddii wa ashaabii wa ansaarii fii qahri muslimatin qabraa'a muuxisatin fardan qariiban waxiidan taxta axjaari amsaytu dayfaka yaa saljuudi murtaxinan wa anta akramu mansoolin bihi qaari fajxal qiraa'iya minka nayla maxfiratin anju ladayka biha yaa xayra xafaari naka noonu xasida jaawartullaaha moom it ku ko mokkal wala ñu suulaale koko deesu ko laaj ci bàmmeelam deesu ko ca fitnaal te faw dana texe ku ko ca war a dugal nag bu dee jigéen mbokkam mu mu araam man teel a ca gën bu amul it ab jàmbur baax na bu dee góor itam mbokkam a ca gën bu amul moom it ab jàmbur baax na sopp nañu itam ka ko cay dugal wax bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallama allahumma taqabalhu bi ahsani xaboolin اللهم إن صاحبنا قد نصل بك وقلف الدنيا وراء سهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بقد ñu tëral ko ci wetu ngay jooram kanam nga jublu xibla te ñu tàllal cëram yépp dindi takk ya ñu takkoon càngaay la ca bopp ba ak tànk ya te ñu deganal ko ca tànk ya ak ca bopp ba bu ko defee ñu wut bant yu dëgër yu demee ni bant jana nga xam ne bu ñu ca defee suuf sa du du damm ñu sang ko pax mu ndaw ma ba mu daj ñu wut am ngeer wala xob yu ni demee teg ko ca bant ya ba mu dëlla dëll ñu wut am ndox wis ko ca xob ya te bañ koo baril waaye na tooy ba bu ca suuf sa demee dana ko téye te dara dana ca royaat ba àgg ca néew ba manees na itam tooyal suuf di ko tay ca xob ya ba mu daj loolu ak wis ca ndox ma lu ca lu ñu ca def baax na daal di koy suul sopp nañu nag ña ko jege ku ne somp ñetti somp sànni ko ca pax ma te somp bu jëkk ba ànd ak min haa xalax naakum bu ñaareel ba ànd ak wa fiha nuidukum bu ñetteel ba ànd ak wa minha nuxrijukum taaratan uxra bu dee jigéen nag bu ñu ko defee ca pax ma ba ba ñuy noppi ca tegug bant ya nañu ca muur malaan te bañ koo yëngal sopp nañu itam ñu jégénal bàmmeel ba ba mu yëkkatiku lu toll ci ab sebre wala mu ëpp ko tuuti sopp nañu itam ku fa teew ñaanal ko ak njëggal ak yërmande ak ñeent fukki lixlaas yu ànd ak bismillahi rahmaani rahimi ak ay julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama li tàmbalee ci ñett baloo man rek te yéene ko yool ba bu ñu ko suulee ba noppi itam deesu ca rëdd deesu ca sotti am ndox itam ndare du dañoo ragal ngelaw naawal suuf sa bant ya ñuy muure pax mu ndaw ma itam deesu ko xunoot sopp nañu itam ku taxaw ca kanam bàmmeel ba wax lii allahumma haasa abduka rudda ilayka wa anta ahlamu bihi wala nahlamu bihi illa xayran wa qad ajlastahu li tasalahu fa nasaluka allahumma an tusabbitahu bil qawli sabiti fi laxirati kama sabbatahu fi dunya allahumma axfir lahu warhamhu waraf bihi wa jaafil arda han jay bayhi وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقبول حسن اللهم إن كان محسنا فداعف له في إحسانه وإن كان مشيئا فتجاوز عنه اللهم ألحقه بنبيه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تبدلنا بعده ولا تحرمنا أجره dal di ne ko yow diw doomi diw ba muy ñetti yoon mu ne ko uskur ma xarajta alayhi min addunia wa hiya shahadatu an la ilaha illa allah wa anna sayidana muhammadan rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبحث من في القبور sopp nañu itam ku taxaw fa tolloog bopp ba jàng fa saaru yësi taxaw fa tolloog tànk ya jàng fa saaru tabaraka sib nañu nag fa ñu koy dence ñu di fa jàng alquran wala ay ñaan wala ay xasida wala tudd yàlla ca kaw lépp lu ñu fay def te yaakaar ci ak barkeel nañu koy yalu te di ko jàng njàng yu raglu yoo xam ne dara ci ak neexamtalu nekku ca sib nañu itam ku fa nekk di di falet wala nga di fa naan di fa lekk wala nga di fa naan wala nga di fa ree wala nga di fa wax wax ju bari wala waxi àdduna lañu fa bëgg daal moo di nga dem fa ñaan fa ñaanal leen waaru fa xalam fa dolliku fa ak ragal yàlla te mu wóor la ne ñii fi tëdd bala ñu fee jóg da nga leen fi teg ngeen bokk fi tëdd biir bu yàgg boo xam ne yàlla rek moo xam nu mu toll loolu moo di njariñul dem fi ay sët bu ci loolu amul nit bañ faa demay gën sopp nañu itam ku ko jaale ay bokkam sopp nañu itam ku dimbali ay dëkkandoom ci ñam ngir dañu ko dul tal waaye nag bañ nañu lool ñu di fa daje di fa rey ay nag wala yeneen topp ko di wéy rek la ca gën daal moo di lu ñu koy defal ñu yemale ko ci bés ba mu faatoo sib nañu lool nag ñuy takk bés ba mu faatoo saa su dellusee ñu di fa daje naa dañu koy saraxal manees na rek bu sa xel demee ci moom nga ñaanal ko wala nga saraxeel ko dara du leen sàkkal sarax ak du leen ñaanal lu baax la lu leen di jariñ la tey jariñ ki koy def ku faatu nag fi mu gën a soxlaa ku ko defal dara moo di la dale ca bés bu jëkk ba ba ca ñetti fan ya ku jullil ku faatu li tàmbalee ci guddeem gu jëkk ba ca ñetti guddi ya ñaari rakkaa bu ci ne faatiya ak ayatul kursi yi ak alheekumu takasuru lu ci ne benn yoon ak qul huwallahu fukki yoon ak benn bu sëlmalee wax lii allahuma inni sallaytu haasihi salaata wa taxlamu maa uridu biha allahuma nas sawaabaha ila ila xabri fulaanin ku ñu ko jullil dees na ko jéggal dees na ko yërëm dees na ko defal xéewal yu bari te ki ko julli moom it dana ci am tiyaaba ju rëy te bala moo faatu dana gis barabam ca àjjana bàmmeel nag waree su koo tabax waree su koo wërale dara dees koo war a bàyyi noonu rek muy tawte ak a naaj manees naa samp bant ca bopp ba ak ca tànk ya rek bu mënula ñàkk daal manees na koo wërale ay doj rek ngir xàmmee ko ko wala bañ ñu gas ci kawam te bañ caa bind dara bokk na ci li tax waree su koo tabax moo di ab jullit bu nekkee ci bàmmeelam bu ñu ko tabaxul bu ñuy nodd dana ko dégg bu ñu ko tabaxee nag dootu ko dégg siyaara ay sëg nag sopp nañu ko waaye bés yi ñu ko gën a taamu nag moo di ajjuma ak alxames ak gaawu ku siyaara ay way juróom ci ajjuma june des na ko jéggal ay bàkkaaram yépp sopp nañu itam mu doon ku laab te bu tàbbee ci sëg yi mu wax lii assalaamu aleykum diyaara xawmin moominiina wa inna insha allahu bikum la laaxiquuna yarhamullahu almustaqdimiina minkum walmustaaxiriina minna antum lana faratun wa nahnu lakum tabahun anasallahu wasatakum wa amana rawhatakum wa jacala aljannata mihaadan baynana wa baynakum اللهم رب هذه الأرواح الباقية والأجساد البالقة والشعور المتمسقة والجلود المتقطعة والعصام النحرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك وسلاما مني اللهم إنك تعلم عددهم ورحمتك أوسع منهم فاغفر لنا ولهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم teg ca qul huwa allahu fukki yoon ak benn ak inaa axtaynaakal kawsara moom it fukki yoon ak benn ak ayatul kursi yi benn yoon yéene ko ña fa nekk ñëpp loolu dana leen jariñ ñoom ñëpp dana jariñ lool itam ki ko def boo ca bëggee dara kenn siyaare ko nag na nga dem ca kanam bàmmeel ba fa tolloog tànk ya bu dee koy ñaanal nga ñaanal ko lool yi ak leneen loo ca mën a dolli ci alquran ak julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama yéene ko yool ba bu dee koo yaakaar ne mënees naa barkeelu ci moom nag boo ko ñaanalee ba noppi nga ñaan yàlla mu defal la la nga bëgg ci barkeem waaye jigéen nit daganul mu dem ci ay sëg moo xam gone la wala mag la noo ngi toll ci xëtum juróom-ñaar fukk ak benn ak sakkaatu farata la ku ko weddi ab yéefar la ku ko bàyyi te tey ko te mu war ko ab saay-saay la bu bon a bon te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm dana war nag ñetti yëf ci kee ak ci ndey ak ci ab jur bu dee kee ku amee lu mat ñaari téeméer ren ba déwén asaka war na ko ca moo xam da koo denc wala muy yaxantu bu dee kuy yaxantu koo xam ne du denc marchandise di ko néga njarte lu neex xanaa lu mu yor rek jaay ko bu jaree mu wuti leneen kooku bu at mi matee day xayma li mu am ci marchandise ak bor yi ñu ko ameel te mu yaakaar ne dana ca jot booleeg li mu am ci xaalis ñaar téeméer yu ne mu génn ci juróomi dërëm waaye jumtuwaayu liggéey yi mel ni bitig yi ak safukaay ya lu ñu bari bari deesu ko xaymawaale waaye lu mu ca jaay nag na seet bés bi mu ko amee wala bés bi mu ko mujjee asakaal ak bés bi mu ko jaayee bu matee at te mat nisaab kon asaka war na ca wala sax matul nisaab waaye am na jeneen alal joo xam ne am na lu mat at ci loxoom te bu ko boolee mu mat nisaab kon it asaka war na ca bu dee lu mel ni kër gu muy luye wala daaba itam li feeg jaayu ko dara waru ko ca bu ko jaayee moom it day seet bis ba mu mujjee asakaal cosaanam bu matee at tamat nisaab kon asaka war na ca yooyu nag lu mu ci asakaal lu mu yàgg yàgg ci loxoom asakay menn at rek moo ca war lañu koy fay ci luyaas ba itam lu mu ca denc am at bu matee nisaab asaka war na ca waaye lu mu bari bari te fekkantiwul ci loxoom lu mat at asaka waru ca kuy liggéey ñi di ko fay la mu ca fayu ba denc ko am at asaka war na ca waaye lu mu bari bari te amul at ci loxoom moom it asaka waru ca kee nag ku amee bor yoo xam ne bu ko fayee lu mat ñaari téeméer bu ca des kon asaka waru ca doonte bor bu diggule sax waaye nag bu amee jeneen alal ju xaymaam fay bor ba te mu am at ci loxoom kon asaka war na ko ca bu dee mbay mboolem li ñu war a asakaal ci lu ñuy bay ñaar fukki xeet la juróom-ñaari xeet yi dugub yi ak juróom-ñaari xeeti sëb yi ak ñeenti xeeti diw yi ak ñaari xeeti meññet yi nun nag li gën a not ci suñu mbay moo di arin ak dugub bu dee arin bu matee ñetti bërigo ak juróom-ñaar fukki kilo ak juróom asaka war na ca bu dee dugub bu matee juróom-ñaari bërigo ak genn wàll asaka war na ca mbay nag bu fekkee taw bee koy suuxat wala ak dex wala am yul kon boo ko góobee fukkeel ba ngay génne bu ñu koy suuxat ak loxo nag genn wàllu fukkeel ba ngay génne bu dee robinet yi nag bu fekkee boo ko tijjee benn yoon mu mën a suuxat tool bépp nga xam ne dana am ay fan te du jar suuxataat kon moog taw bi ñoo yem bu aajoo saa su ne ngay ubbi nag kon moog li ñuy suuxat ci loxo ñoo yem mbay dër yi nag lu ci bokkul ci ñaar fukki xeet yi ñu wax asaka waru ca waaye loo ci jaay ba njëgg am at ci sa loxo bu matee nisaab asaka war na ca kuy bay nag bu amee ay bor bala koo fay day natt asaka ba noppi door koo fay lu mu bari bari ak lu mbay ma néew néew bu dee ak jur nun li ëpp ci sunu jur moo di nag ak xar ak bëy bu dee nag lu matul fanweeri nag asaka waru ca bu ko matee ba ci fanweer ak juróom-ñeent yëkk wu toll ci ñaari at wala wëllu wu ca toll moo ca war bu matee ñeent fukk ba ba muy mat juróom fukk ak juróom-ñeent wëllu wu tàbbi ci ñeenti at moo ca war bu ko ëppee nag ñeent fukk yu ne wëllu wu tàbbi ci ñeenti at fanweer yu ne yëkku ñaari at bu dee ay gàtt bu matee ñeent fukk ba ba muy mat téeméer ak ñaar fukk benn gàtt bu am at jëm kaw moo cay war bu matee téeméer ak ñaar fukk ak benn ba ba muy mat ñaari téeméer ñaari gàtt moo cay war bu matee ñaari téeméer ak benn li fekk matul ñeenti téeméer ñetti gàtt moo cay war bu ko matee jëm kaw nag téeméer bu ne benn gàtt moo ca war ku ñu war a jox asaka nag moo di as gor su di ab jullit te am ca aajo ju wér te muy koo xam ne seenu wula ci moom lenn njariñ lu dul jox ko ko ngir yàlla rek seenu wula mu di la sant ak a gërëm wala mu di ko nettali ci aw nit nga xam ne bëggu la sax ku ko yëg bëgguñu nag ku la dogal ab tool nga di ko jox asaka ja ngir tool ba loolu xaraam na ci ñoom ñaari ñëpp borom tool bi nag bu ko moomee sañ na la koo jaay wala mu luye la ko waaye lu mu ci doon doo ko ko jox ci asaka ji wala lu ñuy lekk wala lu suuf di saxal bëgguñu itam jox nit asaka mu di ko jaay nga di ko jëndaat bëgguñu itam toxal asaka lu gën a sori juróom-ñaar fukki kilomètre te fi nga nekk ku ko yeyoo soriwu fa bu ko weesuwul nit dara newu ca boo gisul ku ko yeyoo lu dul lu ko weesu itam dara newu ca muurum koor farata la bu wér ku ko weddi ab yéefar la ku ko bàyyi te tey ko te terewu ko ab saay-saay la bu bon a bon te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm ana ku muy war nag xanaa as gor su di ab jullit te man koo am doonte da koy leb sax bu yaakaaree ak tey mu di ko war nag ci boppam ak koo xam ne moo ko war a dundal ni ki soxnaam ak doomam ji góor ba ba muy mat góor ak doomam ji jigéen ba ba muy mat a am boroom kër ak ci ay way juram bu ñu ko amul ak ci ab jaamam ana ci li mu koy war a génne nag xanaa ci li ëpp ci dundu bi réew ma mu dëkk nun waa réew mii danañu ko génne ci dugub bi suuna wala saaño wala bësi wala tiñ wala feela wala ceeb ku ko amul jënd ko joxe ko kuy dunde lu dul yii itam mën na koo génne ca la muy dunde rek ana nu mu war a toll nag xanaa bopp bu ne ñaari kilo ak genn wàll ci suuna ak yéni demee bu dee ceeb nag wala muy lu dul yii kon day wut nattukaay goo xam ne ñaari kilo ak genn wàll moo koy fees ci suuna mu natt ko ca te bañ koo peese ana waxtu wu mu koy war a génne nag xanaa gannaaw jullit suba ca bésub korite ga te mu jëkk julli ga sib nañu nag ku ko yeexe gannaaw jullit korite ga ci lu dul ngant ku mu war nag li feeg defu ko mi ngi ci baatam du ko wàcc mukk te kooramit deesu ko nangu li feeg defu ko ana ku ñu ko war a jox nag xanaa ku ñu war a jox asaka rek ñoo yam ci lépp sañees na koo dajale jox ko kenn sañees na koo tasaare ci mbooloo mu ko yeyoo woor weeru koor farata la ci mu kàllaf mu ne ku ko weddi ab yéefar la ku ko bàyyi te tey ko te telewu ko ab saay saay la bu bona bon te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm mi ngi ware nag ci ñu gis weer wi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci aw baraxlu jëf gu wér wala mu mat fanweeri fan gis gi nag kenn ku ko gis bu wér te wéete ko bu ñu wóor bu ñu wooree ak bu ñu wóorul moom war naa woor bu wóorul ngir bëgg a ànd ak nit ñi nag kon fay ko war na ko kafaara it war na ko bu ko gisee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor itam bu xëyee bu mu yéene koor waaye du sañu feeñal dog ga bu ko defee yoon dana ko yar ndare du dafa amee ngant lu ko tax a sañu dog kon mu sañ ko mbooloo mi nag bala ñoo woor wala ñu wori war nañoo gis ñaar ñu ñépp xam seenu maandu ñu ne gis nañu ko wala mbooloo moo xam ne mënuñoo maase ci aw fen ñu ne gis nañu ko kon bu dee koor war nañoo woor bu dee kori war nañoo wori bu dee tabaski war nañoo tabaski waaye boroom xam-xamu biddiw nag ni ki boroom armi naat yi ñoom deesul déglu seeni wax ci weer bu ko am réew gisul te meneen réew gis ko moo xam ne sore nañu kon waa réew ma ko gisul duñu sara duñu sañ a woor te gis ga ko réew ma ca des gis réew mu ne dafa war a yem ci gisug boppam bu ñu soree mas naa am weer woo xam ne dañu ko gisul ca Hijaas dañu wax ne gis nañu ko ca Yaman ñu wax ko Sayyiduna Omar radiyallahu taala anhu mu wax ne bokkunu benn gox bu fekkee nag dañu ko gisul ci seeni bu jëkk ci baraxlu ba ca bëccëg ñu xam ne feeñoon na bu wér kon war nañoo jàpp la des ca bés ba te war nañu ko kayit bu dee kori itam war nañoo dog te bu tisbaar jotul mën nañoo julli korite bu jotee nag faat na te desu ko fay koor nag moo di yéene wax ci sam xel ne fas na ma yéene woor faratay weer wii ngir yàlla ak bàyyi lekk ak naan ak booloo jëkk fajar ba jant so yooyu nag ku ci def lenn te teyu ko war na koo àggale war na koo fayit bu ko teyee nag dana àggale booba bés te war na koo fay te kafaara it war na ko kafaara nag ñetti xeet la benn mu jox juróom benn fukki miskin ku ci ne genn wàllu àndaari dugub wala mu woor ñaari weer yu toftaloo yoo xam ne bu ca génnee benn bés da koy tàmbaliwaat wala mu goreel jaam bu ko lew bu mu bokkul ak kenn te mu di ab jullit te amul jenn ayib benn bés bu ne loolu moo ca war mi ngi ware nag ci nit ki ànd akum xelam te amul wér tey ku ñu togg jëf te bañu nekk ci dox bu ñuy sañ a wàññi julli bu dee jigéen mu dolli ca bañu yor dereti mbërëg wala dereti wasin ku wopp nag bu ragalee ci koor dolli ku wopp ja wala yéex a wér kon sañ naa dog bu ca ragalee dee nag dog ko day war bu ko defee bu weeree bu wéree mu fay ko bu ko yeexee fay ba koor ga dellu ci te xam ne sàggan rek a ko ko ko teg nag kon bu koor ga wéyee dana ko fay te bés bu ne dana joxe genn wàllu àndaar kuy nampal bu ragalee lori doom ja war naa dog waaye dana ko fay te dana joxe genn wàllu àndaar bés bu ne ku ëmb itam bu ragalee lori ëmb ba war naa dog waaye da koy fay rek ku màggat ba attanatul koor sañ na koo bàyyi te joxe genn wàllu àndaar bés bu ne yéeney koor nag sañees na koo defe benn yoon ci guddi gu jëkk ga sañees naa beral bés bu ne yéeneem yéeney boppam am wàccu ak mu gàll lu ca génn te borom teyu ko te man koo yàbbi dara du ca jàll kon du yàq koor bu ñëwee ba ca bëliga te delluwaat nag dana yàq koor bu ko teyul fay ko rek a koy war bu ko teyee nag fay ko dana ko war kafaara it dana ko war am nga lax ndiku ak mu sorax ndiku moom it lu ca ëgsi ba ca bëliga bu ko wannee dana yàq koor ay lor nag ak i larax bu baree yàbbi ko moo gën waaye wan ko it du yàq koor lu mu bari bari sit nañu nag góor gu woor di nefi ay jigéen jigéen yitam naka noonu ak di leen xalaat ak waxi larax ak jëfi caaxaan ak galax ndiku wala sarax ndiku bu sori ak sax lépp lu am caf ko doonte lu deme ni daakaandaay wi rek la sax ak mas cin wala ndoxum ndogu ak bari nelaw yi bëccëg ak laal la koleñ wala mu di la xeeñ ak di suuru ak di tuufu ak di tusngalu ak di soccu ci bant bu tooy xadd nag sunna la ak yeexe ko ak gaaw a dog bu jant soyee ak wattu saw làmmiñ ak say cër ak dog ci lu law ak ci tàndarma ak ci ndox ak dundal weer wépp ci ay jaamu yàlla ak bari fàkk sarax koor nag am na benn am na bés yu ñu soppa woor lu bokkul ak weeru koor sopp nañu ko woor weeru tam xarit wépp rawatina bés bu jëkk ba ak bu ñetteel ba ak juróom-ñeenteel ba ak fukkeel ba ku woor fukkeelub tam xarit des na ko jéggal bàkkaari ak ñi mu weesu ak ñetti fan ci weer wu ne ak weeru ndey koor wépp rawatina ñaar fukkeel ba ak juróom-ñaar ak baraxlu wépp rawatina fukkeel ba ak juróom ak juróom benn fan gannaaw bu ñu woree ku ko def mel na ni ku dëkke koor waaye la ca gën moo di boo waree nga nekk ba dibeer wala àllarba ga ca tegu nga door a umaat ak ñaar fukkeel ak juróom ci diggu tabaski ak juróom-ñeenti fan yi jëkk ci weeru tabaski rawatina juróom-ñeenteel ba ak juróom-ñetteel ba ak juróom-ñeenteel ba ku woor juróom-ñeenteel ba dees na ko jéggal bàkkaari at ñu mu weesu ak at ñu mu jublu ak bés ñu mujj ci at mi bésub kori nag ak bésub tabaski ak ñaari fan yi sës ci tabaski ak araam nañoo woor sib nañu nit ku dëkke koor ak ber benn bés rek di ko woor mel ni ajjuma june ak kuy aj di woor juróom-ñeenteelub tabaski ak woor bésub sikk ngir léemtoo ko ramadaan ku ko def bu dajeeg muy benn panub koor ga itam du ko doy du tee war na koo fay noo ngi toll ci xëtum juróom-ñett fukk aj nag ko benn yoon farata la ci mu kàllaf mu ko man ci yaramam ak ci ab yóbbalam manug yaram wi moo di mu bañ a amee wopp ju ko tee mën a dem wala mu ragal ca dem nga dolliku wopp ja wala sosug wopp wala ak yeex a wér yóbbal bi it moo di mu am lu ko lew lu sell loo xam ne dara ci ribaa nekku ca ak kenn nekku ca te yalwaanu ko ñaanu ko te mu doy ko sëkk ba du tumuranke ci yoon wi du ci yalwaan du ci lëjal kenn waa këram itam mu bàyyi leen lu leen doy sëkk ba duñu tumuranke duñu lëjal kenn mu fay borom yépp bu dul bu ab digam teewul waaye bu dee teew balaa dellu si sax war na koo fay balaa dem wala mu batale ko bu ci yooyu yépp amee nag kon war na ko ni ko julli ware ku ko weddi ab yéefar la ku ko bàyyi te tey ko te tëlewu ko ci genn anam ab saay saay la bu bon te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm ku bëgg aj nag bu demee ba fa muy armale dana fa fekk ku ko jiite ci yi mu war a def yépp ak yi mu war a bàyyi yépp ba ba muy noppi kon jarul nu du ci guddal suñuy wax fii gannaaw bi nu xamlee war gi ak ni muy ware umra itam sunna la benn yoon moo aj nag ñoo niroo lépp waaye boo doxee Safa ak Marwa umra jeex bañ nañu lool nag ku aji ba dikk mu di ko darajawoo wala mu di ko tuddoo di ko dolli ci aw turam wala mu defe ne gëne na ko kenn ku ko deful na ko def ngir yàlla rek ni muy tudde yàlla aka julli aka woor aka natt asaka ngir yàlla mu xam ne ak itam ak yooyu ñooyam képp ci ku mu war kon nag lu waay di def na ko def ngir yàlla rek ngir ludul yàlla ak neen la noo ngi toll ci xëtum juróom-ñett fukk ak benn denc nag sopp nañu ko ci ku ko man te soxla ko waaye nag bu ko soxlaa lool ba ragal ca lor kon da koy war ak nu mu ko mane bu ca ragalul lor te yaakaar ca ngir kon des koy sopp bu ca ragalul lor te yaakaaru ca ngërt kon dafay dagan rek bu ko mënul te ragal ca lori jigéen ja nag kon des koy des ko koy tere benn ñu sib ko wala mu aram sax li koy tax a wér nag moo di pas-pas biy teg tele ne diw dencal nañu ko diw diw it nangu na dencal gi pas-pas bi nag kilifa jigéen ji moo koy def wala mu di ci ndigalam te faww dana amit seere ngën jaa néew ñaar ñu maandu wala ñeent te faww dana ànd ak can gu teew fa ñu koy fase wala ñu tudd ko fa sàkkal ko ab dig ba tey bokk na ci li koy tax a wér mu di jigéen ji bañ a nekk ci idda góor gi itam bañ a yor lu mat ñeenti soxna ki koy fas nag bu dee bu dee kilifa ga day jàng faatiya ñetti yoon teg ca lii bismillahi rahmaani rahimi yaa ayuha nnaasu ittaqoo rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waahidatin wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijaalan kasiiran wa nisaa'an wa taqu llaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaama inna allaha kaana alaykum raqiban tekke lii alhamdulillahi alladi xalala nikaaha wa harrama sifaaha wa salaatu wa salaamu ala rasulillahi amma baadu fa inni qad sawajtu fulaanan fulaanata ala barakatillahi wa surutihi wa ala sadaaqi misliha ñetti yoon wax lii wa chartu fa imsaakum bi maxruufin aw tasrihum bi ixsaanin benn yoon bu ko fasloo keneen nag kooka bu waxee wa surutihi na ca teg bi isni waliha door a wax wa ala sadaaqi misliha ka ñu koy fasal moom it wax la ka doon fas wax ba ci ama baxdu mu teg ca lii fa inni qad qabiltu nikaahaha ala barakatillahi wa surutihi wa ala sadaqi misliha bu wutalee keneen moom it koota bu waxee nikaahaha li wakili la cay teg door a wax ala barakatillahi ba mu àgg bu fa ñaari seere nekkee nañu wax ne qad sahidna ala salika bu fa ñeneen nekkee ñoom it ñu wax ne wa nahnu mahakuma ala salika min ashahidina sopp nañu nag ku fa teew ku ne ñaanal leen lu baax lu mel ni baarakallahu li kulli minkuma fi saahibihi wa jamaha baynakuma bi xayri bi xayrin wa axraja minkuma surriyatan tayibatan taxmalu saaliha amin bu ñu fasee sëy ba ba noppi nag bu dee ñëw këram sopp nañu ñoom ñaar ñu jàpp tiimali ko ci ndab bu ñu noppee wis ko ca ponki néeg ba jigéen jay dugg bu ko defee góor ga teg loxoom te boppub jigéen ja jàng ayatul kursi yi ak saaru yëfi lu ci ne benn yoon ak qul huwa allahu ñetti yoon teg ci lii allahumma anta rabbi wa rabbuha fa fiq bayni wa baynaha innaka ala kulli shay'in xabirun wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawaabu rahimu wala hawla wala quwata ila billahi alaliyi alacimi benn yoon bu bëggee jaxasoog moom nag na am pas-pasub jariñu ca te jublu ca féexal xolam ci fitnay jigéen ak yàlla may ko ca doom ju baax ju yokk diine te di ko dundal te bala mu wuññi xawraam mu wax lii bismillahi irrahmani irrahimi allahumma jannibna saytaana wa jannibi saytaana maa rasaqtana allahumma arsuqni min haasihi waladan saalihan waj'alhu taqiyan naqiyan laysa fi xalqihi siyaadatun wala nuqsaanun waj'al xaaqibatahu wa xaaqibatana ilaa xayrin yaa arhama arrahimina bëgguñu ne kenn ci ñoom ñaar di wax ci tolluwaay boobu wala muy xool awray boppam wala awray moroomam bu ko defee bu ko bëggee laalaat sopp nañu ñoom ñaar ku ci ne sanguwaay ba siw ba set ñu door a jaxasoowaat te it bu ñu ko mënee bala ñoo lekk wala ñu nelaw nañu sangu bu ñu ko mënul it ñu jàpp ngir njàpp ma dana woyofal janaba ja waaye nag du ñu ma du ñu mën a julli ci njàpp ma du ñu ca mën a laal alquran te amee janaba ba noppi di lekk wala ngay nelaw bokk na ci liy sabab ak ñàkk jigéen ji itam weeram wu jëkk war na cay watandiku soow mu wex ak daqaar ak bisaab ak beneegar ak yu forox yépp war na nag ku amee ñaari soxna wala lu ko ëpp mu yemale leen kam kàttanam bañ leen a gënale ci lu tës wala lu amul sabab xëy na sax yemale leen képp ci xolam moom du ko man waaye ko nit mu bañ a jeng-jeng gu ëpp bu nit ëmbee sopp nañu ku bind lii takkal ko ko bu amee doom bu dee góor ñu takkal ko ko ca loxob ndey jooram bu dee jigéen ñu takkal ko ko ca loxob càmmoy ba mi ngi nii inna lasi farada alayka alqur'ana laradduka ila maadin wa qul jaa alxaqu wa sahaqa albatilu in albatila kaana saxooqan وما يحمر من محمر ولا ينقص من همره إلى في كتاب إن ذلك على الله يسير وأصبح فؤاد أم موسى فارقا إن كادت لتبدي به لولا أن ربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ومنها آية للعالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين لقد يجمع الله الشتيتين بعدما يسنان كل فن أن لا تلاقيا bu ëmb ba amee ñetti weer sopp nañu ko jàng tur yi tëfli ko ca abdullah ibnu omar abdullah ibnu mas'ud abdullah ibnu abbas abdullah ibnu subayri abdullah ibnu salaamin abdullah ibnu saydin abdullah ibnu ummi maktum radiallahu taala anhum bu dee koo xam ne bu ëmbee mu yàqu nañu ko bindal lii takkal ko ko wala bisoo fi kahfihim salaasa mi'atin siniina wasdaadoo tis'an qulillaahu a'lamu bimaa labisoo lahu xaybu samaawaati wal ardi bu dee ku yara dal ñu bind bismillaahi rahmaani rahiimi juróom benn fukki yoon ak benn takkal ko ko bu jàppoo ñu bindal ko lii bismillaahi rahmaani rahiimi isaa samaa'u unshaqqat wa azinat li rabbihaa wa huqqat wa isaa al ardu muddat wa alqat maa fiihaa wa taxallat ñetti yoon bismillaahi rahmaani rahiimi إذا سلسلت الأرض سلسالها وأخرجت الأرض أثقالها نتيون ولدت حنة مريم وولدت مريم عيسى عليه السلام أخرج يا ولد أدهوك يا ولد بحق اسم الله العظيم الأعظم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا غصية أو دهاها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب يا خالق النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس ويا مقلس النفس من النفس خلصها بنيون ñu bind loolu raxas ko mu naan ca ñu wis la ca def ca la tàmbalee ca jumbux ba jëm suuf bu doom ja juddoo sopp nañu ko jàng saaru inaa antalnaahu boole ca nodd tifli ko ca noppum ndeyjoor ba liqaam tifli ko ca nopp càmmoy ba loolu ku ñu ko defal yàlla dana ko musal ci patti diine yu bari sopp nañu itam lu saf suukar jiitu ci moom lu mel ni lem wala tàndarma di ñu tëcc ba mu nooy ñu xooj ko wala muy suukar sax sopp nañu itam ku bind suratul xàqati raxas ko defal ko ko ak toqental sopp nañu itam ku bind suratul baladi takkal ko ko buy door a juddu sopp nañu itam ñu tudd ko bu juddoo ba am juróom-ñaari fan te tudd ko te tudd ko ñu rey ca gàtt bu mucc ayib boo xam ne lajjiwul ngormiwul fattul jaddewul te mu di am kuuy te doon am xar moo gën wala aw bëy suñu ko amul lépp lu ñu am baax na juróom-ñaari fan yi nag bésu ci limaale bés boo xam ne juddu na ca gannaaw fajar fajar ji mu jëkk a fekk ci àdduna daal la ñuy lim ba ca juróom-ñaareel ba mu doon bésub tudd ba ba maase fajar itam dees na ko limaale gàtt ba nag bu yoor yooree ñu rey ko ba ba jant di so waaye deesu ko rey bu jant fenk gul wala gannaaw bu jant soyee yooyu ñaar lu ñu ci def ak ndawal rek lay doon waaye du doon am tudd sopp nañu itam bu ñu koy tudd turuwa ànd ak rendi gàtt ba bu dee ay seex yëpp ku ci ne ak gàttu boppam sopp nañu itam bu ñu ko watee ñu saraxe lu toll ni diisaayub kawar ga ci wurus wala xaalis wat ga itam mooy jiitu tudd ga ndawal ga itam dees na ca lekk dees na ca saraxe te balaa doon am tudd dees caa saraxe ba noppi doom ga itam deesu ko taqal dara ca dara ci tudd ma ku judduwaalewul bakkan nag ak ko faatu njëkk bésu tudd ba deesu leen reyal ay gàtt waaye dees na leen tudd bala ñu leen a denc bu dee ko amul am tudd nag saa su ko neexee mën na koo tudd waaye nag yoor yoor moo ca gën sopp nañu itam ñu bañ a yem ca mel na xarma xanaa wut leneen loo xam ne dañu koy yaatale teraangay mbooloo ma fay daje kon noo ngi yem fii ci bandub ñeenteel bi xatum juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar di séntu bandub juróomeel bi insha allahu